c'est bon Salam alaikum Sénégal di am euh, vraiment contenté janoo ak ak yéen di waxtaan wax suñu xalaat damay dégg ba tey ay sénégalais yu naan oui notre démocratie à terre oui notre démocratie à genoux mais ñun ñoo mën a nax suñu bopp démocratie dafa am Sénégal gi lii mooy démocratie nañu bàyyi nax suñu bopp ñun ñoo gën a yées yeneen réew yi daan am yenn mbir yi ñu doon ñu ñu ko doon nettali ndeysaan ku fekkoon tey ji Kéba mbay fa mu tëdd nga xamal ko ne ko Sénégal justice am fii la toll en 2024 salfaañee jàpp ay nit ci tegul ci dara jiñ ay nit xoqatal ay nit ku yeewoon Jean colin nous ko le ministre de l'Intérieur, pour le la gën a yées du ko gëm 2000 Dakar sera comparé. mais en 2024 le Sénégal est pire que le régime de Idi Amin du ko gëm kon le Sénégal bu fekkente ki nga xam ne moo jiite réew mi moo njëkk a def li ñuy wooyee appel à l'insurrection ndax moo njëkk a wax ne protéger leen seen ay gox bu keneen dugg si seen gox yéen xeex leen ak moom il a dit yàggul dara ba mu nekkee ci opposition amul lu mu fi waxul tey mu ne sénégalais yi kenn du wax sénégalais amatul droit wax yéen presse bi seen liberté de presse moom lañ soppi délit de presse askan bi. C'est une liberté d'opinion nous sommes des délit d'opinion et puis nous avons ko démocratie à genoux nangam sangam bu nous suñu Sénégal démocratie Nous démocratie dëgg bi Nous ko mu démocratie. nous avons une 2011 nous avons une parcelle Nous avons une parcelle Nous a une Karim

def nañ lu ne pour Sénégal toll fii mu toll tey mais malheureusement delloowuñu lañ ko jox dañ ko jox réew moo xamante ne ni dafa tuur pour mu ñëw au pouvoir les jeunes se sont mobilisés pour xeex pour que mu ñëw au pouvoir jeunes yooyu la njëkk a dëdd wan leen ginnaaw la preuve pirogue yaa ngi nii loolu pirogue yi moom mooy preuve échec gouvernement bi ci seen politique de jeunesse boo waxee ji wax xëy yu ndaw ndaw xaw ma ndaw xëy xaw ma xëyu ndaw yi kan moo xëy Sénégal kan kan moo xëy Sénégal ku bokkul bennoo bokk yaakaar wala bennoo bokk yàqal Sénégal soo dajalee loolu yëpp frustration yooyu noonu yëpp après nga ne Sénégal kenn du wax mais man mosumaa gis régime bu jaaxaanee di saw nii comme régime bii nii tey parce que jaaxaan di saw weesuwul nga ne dangay ngay couper internet couper réseau yi pour ne pas nga gis wala nga dégg li nga xam ne mi ngi xew ci dëkk bi mais yow xam nga ne mi ngi xew mais da ngay couper réseau yi pour nit ñi buñ ko dégg wala buñ ko gis loolu nax sa bopp weesuwul ko kon sama gaay Sénégal fi ñu toll ñun ñëpp suñu responsabilité dañ ko engagé suñu responsabilité dañ ko engagé mooy permettre may rendre un vibrant hommage à tous ceux qui sont dans les prisons surtout ñi nga xam ne amuñu tour kenn xamu leen wax seen ay famille sant leen yàlla. wax leen alhamdulilah ndax seen i doom seen i jëkkër seen i mag seen i sœur seen i dugg nañ ci histoire du Sénégal et par la grande porte contrairement à ce régime là qui sortira par un trou de souris parce que amul feneen fu mën a jaar kon yéen famille yooyu ndokkale naa leen ci seen i ay doom yu am ay taxawaay yu fasantiku ci seen réew ba kaso fekk leen ci tey di wax ñooñu nag nekk ci kaso yi ne leen ne gars yi massa massa bëgg sa réew dafa la waroon takkal ay chevalier de l'ordre du mérite nangam sangam waaye Sénégal bëgg sa réew kaso mooy récompense bi kaso mooy récompense bëgg sa réew pendant ce temps là ku yeewoon suñu mag ñu baax ñi ne leen Sénégal ministère de l'environnement day commandé ay armes à point du ko gëm kon nañu bàyyi caaxaan Sénégal quoi buñ naxante wax ji waxu na nous gën a takk nous gën a taxaw Nous gën a taxaw dëggal suñu bopp mais taxaw dëggal suñu bopp dafa bëri ay façon dafa bëri ay façon parce que bu fekkee ne Sénégal kenn de liberté def quoi que ce soit n'importe parti politique yi la ñu bañal ñu def conférence de presse waxatuma la ak askan bi waxatuma la ak citoyen mais les formes de lutte sont multiples et diversifiées F24 fësal na ci ay pàcc amna na yeneen ak yeneen yi war a ñëw nañu rester à l'écoute nañu soudé nañu gën a gëm ne rien n'est perdu au contraire c'est le début du commencement kenn mënul defar omelette te doo toj ay nen dama bëgg sénégalais bi toog biir këram découragé ci Sénégal situation bi mu toll mu xam ne du heure découragement au contraire heure sant la heure sant la ñu nekk dañu nekk ci guddi gu bët setagul mais allah kulli xaal bët dana set gars yi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bàyyi loxo yi. Nous ñu découragé nous Nous a gëm nañ gën nous nous rester forts et debout parce que c'est le moment étape cruciale pour nous nekk di traverser démocratie la wala ci situation politique bu parce que si nous paree ci Macky Sall dañuy pas ci politiciens qui ñu am mais regardez l'alternative bi am politique aujourd'hui Il y a des lueurs d'espoir Regardez leen ñi séq langue politique d'aujourd'hui. aujourd'hui à part ñi may bañ a tudd paay màgge di tas yi nga xam ne régime bu ñëw ñu fokkale lekk ci ñoo xam ne xamuñ suur naa bokk nañ parti bu ne bokk nañ ci pouvoir bu ne bët bu rusul toj nit da ngay am looy rus ci jamonoy sénégal ba tey nga nekk ci ay nguur nekk ci ay teranga Sénégal jox la lépp delloo wax dara on va en finir avec ces gens-là et il y a beaucoup d'alternatives moo tax il faut que ñu xeex pour que élection yi sénégalais bu ci bëgg a bokk mën caa bokk mais surtout ñi ca wara bok bokk waxuma ñu ci waral bok ay waya waya mais ku ci wara bok et c'est ça c'est important kon buñu décourager Sénégal buñu décourager restons forts c'est le moment de rester fort c'est le moment de montrer à Macky Sall que aujourd'hui tay la defe tam gën a parce que pour nous bu fekké né museler internet museler ay réseaux sociaux tëj ay nit japp ay nit japp ay dissoudre le parti politique lolu mom moy mom amna victoire mais lolu ça ne fait que confirmer sa défaite. Ça ne fait que confirmer sa défaite parce que on a le jeu démocratique parce que ni triché, tricher rek dafa au match de football nga jënd arbitre bi wala nga ñu ñu nga ay bii wala bii yu dugul wala nga dans l'illégalité yow sa de ngay nax bu que tu utilises les moyens de l'État pour rester dans l'illégalité c'est une déception aujourd'hui que de vivre dans un Sénégal pareil Moi, j'ai honte j'ai honte déjà pour faire notre conférence de presse nga Carfi, ça rappelle le Congo bi ñu mais ça c'est c'est honteux état policier régime d'exception acharnement abus de pouvoir dérive autoritaire voilà le qui a matérialiser ce régime là mais qu'on ne parle plus de démocratie au Sénégal une responsabilité nag de restaurer la démocratie indiwaat ko ci mais comme nous, juróom bien weer moo bu may Macky Sall li mu bëgg il veut installer le chaos dans ce pays pour se donner un prétexte de rester au pouvoir duñ la ko may doo ko fi defee doo ko fi ce pays ne sera pas dans le chaos bi nga bëgg Sénégal du sombrer ci chaos parce que chaos ñun bëgguñ ko ñun jàmm la ñu mais jàmm dans la dignité aussi dinañ xeex suñu ay espace kenn mënu ko réduire li ñu war a wax danañ ko wax danañ ko wax ca na mu duñ ko waxee comme ni ko waa bennoo benn bennoo bokk yàqal Sénégal di waxee di saaga ay ndey nit ñi di xas nit ñi di wax lu leen neex dara du leen ci fekk man bi ma defee discours am 3 juillet sax naan bokkatuma nekkatuma candidat mais dinaa fexe ba képp koo xamante ne ni yoon topp na lu ne la jàpp ma ne alhamdulilah suñ milliards dana ñëwaat ndax waa Covid ndeysaan mais ndekete boobu il a été clair son programme et son plan a été clair depuis le début maintenant nag ñun ñoo ci des donc restons forts restons mobilisés Sénégal dara le combat ne vient que ñu a commencé et je tiens à le dire vous de restons forts c'est le moment de rester fort Inch'Allah, la victoire est au bout et elle est très très très très proche Nous sommes le F24 du sabab Inch'Allah, si Si nous les plans d'action avec la mobilisation qu'il faut avec la détermination qu'il faut InshaAllah, rabi résultat bi dina à kon. maa ngi leen di jaajëfal di leen wax ne wasalaam jërë ngeen jëf